ñu jot ni mo ren di ñetti domam yu tollu ci fukki at fukki at ak ñent ak fukki at ak juroom benn dinañ koy woowee philomène di it kat bu am ñen fukki at dëkk sa réewum france dëkk bi ñuy wooyee damar sen et marne sa penku paris mbir mi ngi xew gannaaw ba mu jàppantewe ak jëkkëram ba kooku fanaani sa bërëbu liggéey kaayam di ab docteur bu toll ci juróom fukki at ci kaddu jëkër ji Diojine sen bari won na la mu doon naan sangara lol gone yi nak bañu len leen rendiwee ni mala daf len fekkon ci ay nelaw gannaaw lolou la ko ay mbam fat ay bëss ay wotam téléphone ci la tak dari xam fa mu nekk bañu jëli jiko bañu ko seyto nak dañ ko yobbu ci ben ngir fajj xel mi tak der yu Versailles di wéyal sen lànk Diojine Sène di it artiste bu génné won ben album bu yagul dara Ibrahima Camara ñu lay uh, jaajëfal njiitu réew bu Sénégal daje uh, teewe woon ji am uh, ndaje mu soxal lii di science ñu daal di nag amal yokk li nga xam ne moom ay matuwaay laboratoire yi ak euh, lu ni mel euh, mu ne sax euh, jéego yooyee dañ ko nara a bu baax a baax maanaam daal ba li ñuy wax technologie ak lepp lu ko soxal ñu gën ko jëmal fi ci Sénégal dañ koy teewlu ak Nafissatou Sina Atanaax Ba ñooñu teewaloon fofé ci ndaje ma. Les écoles sénégalaises sans exclusive. dara yu Sénégal yépp wara bok ci suqalib enseignement science ak technique dinañu leen ci jappalé bu baax. Euh, lolu tax sax euh, waxnako ak ministre de l'enseignement supérieur communauté scientifique bi yep ci wara a nu ba équiper euh, laboratoire yep ci faculté yi ci lycée yi ak ci collège yi lolu bokku na ci lima sama mandat. le rééquipement de l'ensemble de nos laboratoires. mu nekkoon euh, njiitu réew bu euh, Sénégal Macky mu doon euh, teewete tey jii am ndaje fii ci ndakaaru ndakaaru ba tey ci xibaar yi Médina Yëmbal 2 di ab gox bu ne ci ndakaaru ñoom it jéye am fa ndaxte daal benn gune gu jigéen tudd Aïcha Ndiaye ay talam ay atam toll ci juróom-ñeent moom nag dafa faatu dafa lapp ci ndox mu fa taa askan wa ne ndox moomee yàgg na fa ndaxte mbënn yu bëri fa lañ ko fekk tax na ñuy woo njiit yi ñu ndi ci saafara ñoom sax nag mer ba futtu ñu ne nag dinañu amal am euh, ndaje euh, tey jii euh, ci ngoon lay doon ba tey ci xibaar yi gaz nag jafe woon lool fan yi nu génn fi mu ne ni nag moom amaat na ñu daal di koy rafetlu soxna yi ñu ne nag lim bi wàcc am na solo takku na lool waaye terewul ñu ngi dundee gàllankoor dañ ci ànd ak Maymuna ak Adja ñii mbégte la ñu àndal gannaaw ba ñu yëgee ni gaz bi dellusiwaat na ci marché bi gannaaw ba ñu toogee ay bés gisuñu gaz dégguñu gaz. fekk naa fi nit ñu bare bare euh, waaye maa ngi sant ndaxte euh, jot na am benn butéelu gaz euh, soxla woon naa beneen waaye nii la deme yëf yi daal yombul dara. naka noonu ci ñiy dawal sareet ñoom toog nañ ay bés daanaka liggéeyuñu. kon ko gaz dafa manqué woon tamit. dañuy toog nii ni tamit di xaar gaz comme que gaz ñëw na dañuy tàmbaliwaat si lu ñu nekkoon di liggéeyaat rek amuñu fii dara mais na xam nga comme que gaz ñëw na nekkoon rek dóor waat amaan na wante jot ci doonul lu yomb. ñëw naa fi si fekk gaz yaa ngi fekk oto bi ñëwagul mais bi mu ñëwee charretier yi rek lañu la ñu jox gaz normalement bu pénurie amee dañoo war a arrêté eh, jox eh, kii charrette yi jox ñun ñi nga xam ne dañuy consommer. dañoo ñëw fekk mu jeex waaye nee nañu léegi mu ñëwaat incha allah ñoo ngi raan di xaar. ci dibeer gi lu tollook junni tonu gaz wàcc na ci ndakaaru waa SAR di xaarandi feek ay bés lu tollook ñeenti junni tonn. Maimouna Ndiaye ñu lay jaajëfal ci euh, leral yi ba tey ci xibaaru diggu bëccëg gi euh, ndongo yi ni euh, tàggat fii ñu leen di woowee travailleurs sociaux ñoom nag dañoo mer ba futu ñu ne lu ko waral maanaam daal fonction publique bi àgg fa dafa doon lu leen euh, jafe rax ci dolli ni ñu leen euh, dikk euh, ci ay xëy mu toll ci juróom ñu ne loolee metti na ndaxte dañuy jàng at yu bëri te bu ñu génnee am xëy da leen di të dañ ci ànd ak Fatou bintu Konté moo ñu teewaloon foofee mbettel gu mag la am jamono ji ñom ñi travailleurs sociaux yi ci recrutement fonction publique bi ñom ñi di élèves yi génn ci école nationale des travailleurs sociaux spécialisés cinq postes rek la leen nguur gi jox mu di loo xam leen non seulement nous ñoo faté sax mais affaire bi on se dit que dañ ken considéré parce que recrutement 5500 et quelques nous jël ci cinq travailleurs sociaux loolu moom kenn mësu ko woon xalaat kenn mësu woon xalaat ñuy jël ay cinq travailleurs sociaux vaut mieux que ñu bañ ñoo jël. vaut mieux que ñu bañ ñoo jël. jàpp nañu nag ni li nga xam ne moom mooy liggéeyu travailleurs sociaux fii ci Sénégal kenn xamu ko fii ba tax ni ngir recruter leen sax dafa doon lu jafe bu ñu dégloo ki nga xam ne moom mooy seen directeur. bu ñu waxee dëgg dëgg travail social comme ni ñuy recruter jàngalekat bi wala docteur bi wala keneen travail social recruter ñu ko doon parce que xam. li koy mën a saafara mooy ministère yi fi nekk. demandé d'abord travailleurs sociaux yi ñu recruter leen ministère yi seen bopp soxla leen ñëw nii soxla nañ leen nañ leen jël kooku ci côté nguur gi lay doon beneen boor bi aussi mooy que ñun ñi nga xam ñu ay travailleurs sociaux foog ñu ñu fexe ba ñu xam ñu ci lool loolu lañ nekk. travailleurs sociaux yi nag di ñaax ki nga xam ne mu mën njiitum réew mi mu gëstuwaat leen bu baax ndax am na nañu solo ci askan wi. président bi mënul réussir politique sociale am sans que mu inclure travailleurs sociaux yi donc bu jëlee seen projet yi mu bëgg a def pour population yi avec seen travailleurs sociaux mënu ko def. bu ñu fàttalikoo 2004 ba tey ñoom travailleurs sociaux yooyu kenn recruté wu leen fii ci Sénégal jamono ji toll nañ ci deux cent vingt 225 diplômés yoo xam ne dañoo ñàkk liggéey fii ci Sénégal. Fatou bintu Konté ñeneen ñu mer di fajkat yi ci seen kuréel euh, gi leen euh, ëmb ñoom nag dañoo xamle ne daal euh, nguur gi da leen beddi ci doxalin bi mu jël ci lu soxal li ñuy woowee couverture médical social ñoom nag ñu ne nag li ñu bëgg rek mooy ñu boole leen ci ndax ñoom ñooy fajkat yi te bu leen ci boolewutkat kat doxin bi dina xaw a soxe ci loolu dañuy teewlu docteur Alpha yi muy indi ci ay leeral. yi nga xam ne ñu nekk ci privé. ndaxte ñu ci bari ci ñoom dañuy faj askan bi bu ñuy xalaat di waxtaan ci jumtukaay boo xamee ni dafay fexe sénégalais yépp mun a faju ci anam yu mu gën a yombe ak nu mu gën a baaxe ndigim ñun ñiy faj barewuñu dañu néew lool bu ñu ko xoolee méngale ko ak limu Sénégal yi war nañu ci dugal képp kuy sénégalais yàlla may la nga am xam-xam bu màcc ci fajaate ngir nga mën a xool yow nan nga mën a jàppale Sénégalais yi ak suñu jëwri ñi nga xam ñooy nekk ci ci ci nguur gi ci ñu tudde ko nguur gi ñu xool nan lañu mën a fexee ba Sénégalais bu soxla faju ak fu mënti nekk ci senegal ñu mën ko ko yombalal waaw loolu mooy suñu mëbét te war nañ ñu ci boole bu ñu ci boolewul tamit war nañu koo def boole bi tamit bu nekkee boole boo xam ne dafa nekk xaw a yolom tuuti war nañ ko gën a yaatal yégal ñu ci ba ñun ñu yëg ne ñun ñii kat. dugal nañu ci biir. sàkku gi ni euh, sàkku njagamaar yi ci daara yi ñu ne mekku ci doxalin euh, bu yees euh, maanaam daal ak jébaane ñu ne loole nag taskatu xibaar yi ñoo ci def pàcc bu am solo ci loolu ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu woowee lu ñuy def nag mooy naqarlu lu ñenn ci jàngalekat yi ñu ne dañoo wàccook seen wareef ndax ci dolli ndongo yi itam colin gi léeg-léeg daal dafay xaw a doy waar dañ ci ànd ak Fatou ne dem sàkku gi ñuy sàkku xale yu jigéen yi ci daara yi doonatul lu ñuy laam-laamee ci suuf yéenekaay yi dañu koy fésal saa su amee mbir mi lu yàgg la. Euh, dañu wàcc midi bi ñu wàccee midi euh, maître bi ne benn xale bu jigéen xale bu xaw a xeereer ni euh, njool ne ko bul génn classe xale bi toog.

balaa ñuy man euh, dem di liggéey euh, dama yaakaar formation boobu moo xaw a am euh, ay manquement moo xaw a des dina leen jàngal naka la ñuy jàngalee naka la ñuy yore classe naka la ñuy defaree leçon